lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara am na it ay barab yoo xam ne nit ñi dañuy wax naan damay dem fee di fa xalangu soxna jaara musta xalangu fenn fi suuf ni mu ni mu mate woon ci ci ci baatin noonu la mate ci zahir jëmm ju correct la woon te civilisé te am falsafa islamiya nekk nit dara luy nuru yëfi dof daaw ko def te xalangu ci suufu kese moom jëfi dof rek kenn ku ne war na koo moytu kon ku fiy ñëw da ngaa war a gis ne barabam bee boo ko jubee di jàng ay xulwa di ko ko hadiyaal ginnaaw xulwa yi nga def tawasul ci moom ñaan sa borom sun borom faj say aajo moo yitte ji waaye leneen néew fi ci dëkk bi lu dul xam waaw waaw mi ngoog yooyu yëpp ay nit ñi dañuy wax rek ndax fi mu ne nii fii damay wax ne barab boo fa yàggul mille 1865 66 nga nelaw mënee su laa waxal yenn yi ca barab ba <laughs> li ci am solo mooy baraba ma ngi nii gis nañ ko Cheikh Mamadou Bachir moo ko moo ko moo ko moo ko wër ba gis ko Sëñ Tuubaa jox ko ci ndigal daaray maam jaare jaa ngi nii maanaam li li li sëñ Basiru bi mu fi fanaanee ne barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba sëriñ Isaaxa dafay wax ne yéene ji bu doon jëmmi nit duñ taxawal ruuxuk jëmm ji mooy daaray maam jaara alquran sëñ Tuubaa léppam alquran la soxna jaara léppam alquran la ndax ab boroom xam-xam la woon bu mokkal alquran ci fukki atam bind kaamil ci fukki at kon suñ ko fayee daaray alxuraan ci biir dëkk bi li ëpp valeur ci dëkk bi kon mooy barabu boppam bi ak daaray maam jaara te dara génnu ci diine kon loolu mooy diine kon soxna jaara léppam ci biir diine la nekk kuy ñëw da ngay da ngay da war a def ci sam xel ne fa nga jëm kook diine fa ne ku liggéeyal yàlla ci diine ba mu ko wala mooy wax ji nga profiter ci occasion bi ndax dafa gàtt ba déwénati incha allah asalaamaaleykum way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmal boppam soxna jaara soxna jaara